waaw mbokk internet yi comme euh, ni ngeen ko gisee ba tey ñu ngi ci euh, cérémonie bi ouverture école bi nga xamante c'est pour le c'est dédié aux jeunes acteurs yi nga xamante ni dañu bëgg a nekk ay acteurs yu mag a mag a mag fii du Sénégal euh, ñu fekk ay acteurs yu bëree bëri bëri mais dañ fi fekk benn daanaan boo xamante ni moom aussi il a marqué son empreinte ci li nga xamante moom mooy théâtre Sénégal muy Djibril dafa bañ a wax nag mais tànc nañ ko ah delloo ziar maa di ziar gars euh, rafetlu aussi opportunité bi ngeen may pour mën a wax ci événement wu tey bi événement wu Amadou Ly bi c'est un collègue <coughs> c'est un acteur et c'est un très bon acteur parce qu'on a eu voir certains de ses extraits on n'a pas eu encore l'occasion de regarder un, un, un plus large de lui mais on a quand même eu des extraits de lui c'est le moment de le féliciter et de l'encourager à aller plus de l'avant maintenant dafa def affaire bu am solo mooy ñëw installer benn euh, école de formation fii nii Sénégal vraiment dañ koy féliciter parce que loo xamante ne état moo ko waroon def wala ñu gën a am doole moo ko waroon def mais moom avec le peu de moyens qu'il a il a décidé simplement de de venir à Dakar s'installer et de partager son expérience avec euh, tous ces jeunes qui veulent devenir euh, acteurs parce que quand on a vu que le milieu cinématographique sénégalais est en vogue maintenant nit ñi léegi dañ ko bëgg a fréquenter beaucoup d'entre nous d'entre eux veulent devenir acteurs et je pense que on a besoin de structures comme ça comme yu mu teg et vraiment c'est le moment de le féliciter et de dire que commencement la rek mais xam na ne ci kanam dinañ am lu gën a lu gën a lu gën a lu gën a dëgër lii dinañ am une très grande école donc félicitations et très très je te vraiment bon succès. voilà mais li ñu gis nag euh, mooy am na loo xamante ni euh, nakarlu na ko ci état wu Sénégal. parce que mm. étant jeune teg lu mel nii mais day gis ni pour mu dëgg ci ñoom wala mu am accès ci ñoom c'est trop compliqué par rapport ak yeneen pays ak pays bu mu jógee donc loolu aussi euh, en tant que jeune yow. waaye il a pas tort en dëkk bi fii moom c'est vrai que suñu environnement permettre ñu parfois ñu def yenn yenn initiative yi c'est vraiment difficile dara waruñu téye en fait dara waruñu téye parce que pour man li gën a jafe mooy nga bëgg benn mbir mais boo xasee ba bëgg moom dara waru la téye du état du du du leneen et puis nous jeunes sénégalais on doit arrêter d'être trop attentiste et de dire que tout doit venir de l'état mais on doit se pouvoir voler de nos propres moyens te c'est lui c'est c'est ce qu'il a fait et d'autres vont peut-être le faire ñun aussi on on on ñu ngi ñaan yàlla mën a def loolu. suba suñu mënee am am li mu am ba ñëw def lu mu def nii tey ce serait bien après ñeneen ñi servir aussi mais c'est pas l'État nous on, on doit arrêter d'être euh, attentiste c'est pas comme ça que les choses vont bouger parce que milieu bi boo ci nekkee yow yaa gën maîtriser ki ñu si nekkul yo yor mën nañ yor xaalis mën nañ yor tout tout tout mais yàlla gën a maîtriser milieu bi donc bu euh, euh, euh, ni nga ko waxee c'est en vogue ñëpp bëgg mais est que jàpp laaj na dafa jot nag koo xamante ni jug na pour dugg si mu def formation bi nga xamante ni moom moo ci war pour mën a mën a exercer. bien sûr bien sûr tu sais tout tout dafa laaj nga formé lu ci mel ni cinéma par exemple le jeu d'acteur dafa laaj vraiment parce que am na affaire yu bëri yu si laax yoo xam te nit ñi dañuy foog ne c'est simple alors c'est pas simple mais il existe beaucoup d'astuces beaucoup de techniques beaucoup de et, et, et malheureusement Sénégal fii amuñu école bu ñu bu woon loolu mais si on a une école def war ko mën a bàyyi yow est-ce que da ngay partager même idée que moom bah je vais pas dire que je vais partager la même idée parce que xaw le fond de sa pensée mais ce que moi je pense man sama avis mooy euh, c'est vrai qu'on fait du cinéma mais je vais dire une chose peut-être mën na toucher ñenn le cinéma des États-Unis n'est pas le cinéma du Sénégal loolu il faut le reconnaître parce que nous ne sommes pas dans la même société nous n'avons pas les mêmes réalités tey man je peux accepter que les gens se plaignent de certains de certaines actions ou de certaines scènes qu'on fait c'est tout à fait normal mais de l'autre côté aussi nous on a besoin juste de liberté de pouvoir plus créer loolu parce que art création là donc si t'as pas la liberté de créer c'est compliqué maintenant nag ci biir création boobu nag ci liberté bi pour créer faut tenir en compte que tu vis dans un pays où y a beaucoup de dañ si am dañu am ay donc euh, bu fekkee ne feneen nag on est libre par exemple tey su ma demoon benn plateau di ak ak des français ou avec des américains là je suis libre parce que je sais que ni c'est une production française ou américaine. Mais tu peux pas venir au Sénégal tourner avec une production sénégalaise, hein, réalisée par un Sénégalais, écrite par un Sénégalais, jouée par des Sénégalais, nga bëgg def loo xamante ne ay Américains ñoo koy def. Boobaa pour moi da ngay offenser sa société quoi. Donc quand tu vis dans une société, il pour pouvoir exister dans cette société. Mais bien sûr, Sénégal fi on a j'ai fait d'autres productions yoo xamante ne j'ai fait pire que ce que Djibril fait mais c'est des productions étrangères. non Djibril dafa doy waar mais def naa pire que lui mais avec Djibril je suis obligé d'avoir des limites parce que comme je t'ai dit c'est une production sénégalaise et puis voilà. lan journée Amadou journée ah, journée journée Amadou li mu def parce que ce qu'il a fait c'est extraordinaire honnêtement ñun man xaw ko c'est la première fois ma koy gis. mais ça m'a donné plaisir ma ñëw fi tey fekkee li muy def nii parce que xam naa ne dans l'histoire on en reprendra dans l'avenir on en reparlera dinañ ne école bi nii la commencé te ñi ñoo fi nekkoon parce que du affaire bu ndaw ko donc nañ bàyyi lépp de côté ñu ñu magnifier li mu def. parce que non non dama xam ne lii. lan la ñuy xaar lii la ñuy xaar mu def affaire bu big. <laughs> pas grand chose à dire c'est un frère c'est un ami. Euh, sénégalais qui vient faire de belles choses dans le pays dañ ko ciy je pense qu'on est tous là pour le soutenir c'est rien d'autre euh, je pense qu'on n'a pas besoin de longs débats moom lu mu naroon wax wax na ko pare et voilà xam nañ nekk fii on sait pourquoi il a créé cette école te ñun ñu ci mën a jàpp que xam nga succès la succès sénégalais la tey la moom déjà loolu rek jeexal je pense que c'est c'est ça on n'a pas grand chose à dire juste le soutenir di ko ñaanal affaire yi gën a kanam et puis lu waxee puis voilà affaire jëm kanam. merci beaucoup merci beaucoup. merci maa leen nuyu di leen fay di nuyu sama grand bi ni taxawaa à côté. donc di rafetlu initiative bu mu teg parce que je pense que euh, aaru maanaam Sénégal cinéma Sénégal soxla woon na lii quoi. am peut-être benn école boo xam ne nii c'est professionnel ay pro ñoom ñoo fa nekk former yi. et juste di ko wax félicitations et bonne continuation mu am yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen quoi. d'accord ñu gis la nga ñëw fii euh, pour soutenir sa frère comme ni nga ko waxee mais est-ce que jàpp nga ni lii nga xamante ni commencé na ko yëkkati pour euh, jëmale euh, aaru Sénégal ci kanam est jàpp nga ni dina nekk mbir mu simple d'autant plus que Sénégal dañu am ay réalité yoo xamante ni ci wàllum cinéma toujours da ngay gis coow li di am fii indil fii. waaw bon du yomb man personnellement xamante wuñu bu baax sama jabar moom ma moom ma expliqué affaire yi après j'ai dugg si internet bi xool affaire yi muy def et que fierté la quoi donc c'est doomu Sénégal la ñun ñoo ko war a jàppale et li muy teg du du affaire bu simple du affaire bu yomb mais peut-être bu tegoo si benn ligne boo xam ne yoonu job la dafay am succès pour man lépp c'est dans l'organisation en fait lépp loo xam ne c'est organisé rek dafay dem. yow artiste nga da ngay rap euh, mais est-ce jàpp nga ni euh, dans l'avenir di nga dugg ci li nga xamante ni moom mooy milieu cinéma comme que art bi moom dafa yaatu te lépp benn. waaw daa mel ni commencé naa ko de parce que am na si benn production bu ma nekk nii. peut-être dafa génnagul. mais bon peut-être après di ngeen gis daal. mais bon maa ngi si maa ngi si c'est un truc boo xam ne ça m'intéresse man personnellement. parce que en dehors musique képp kuy def musique wala nga nekk si mode wala nga nekk ci leneen lépp loo xam ne ça tourne autour de l'image da ngay genre voilà quoi mun nga nekk acteur comme mun nga nekk leneen ak leneen donc je me dis que daal. Yeah. D'accord. Nouvellement marié, euh, mm. d'abord, dañ lay féliciter. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu euh, par rapport ces relations ak sa parce que xale nga nekk xale yu bëgg la. nga marié wu tout récemment est-ce que man nga ñëw waaw parce que dinaa si wax lu bëri. ñi nga ñi nga ñi nga jooy ñi nga jooylee moom dégg naa bëri na quoi. waaw bàyyi ma dund sama vie ah, noonu la àdduna bi moom da ngay da am ñu la topp nga am yow ñoo topp après voilà quoi yàlla moo lay booleeg benn nit boo xam ne da ngay nekk ak moom. Euh, du yomb di ngeen nekk di nga gis yeneen jigéen yeneen jigéen dinañ ñëw di la approché mais da ngay da ngay muñ te rek. lan moo la gën <laughs> <laughs> Donc, je m'appelle Mohamed Ounian, donc je suis le chef de division de la... Donc, je m'appelle Mohamed Ounian, donc je suis le chef de division de la MEDEV et des relations avec les entreprises. Donc, le directeur de l'emploi, M. Modoufal, m'a envoyé euh, aujourd'hui pour lui représenter à cette activité de lancement de l'ouverture de l'école de formation pour les acteurs de monsieur Si. Donc, M. Lee, Michel Lee. Donc euh, le directeur de l'emploi quand même m'a demandé d'assister de de, à cette euh, activité pour voir quelles sont les pistes de collaboration que la direction de l'emploi et euh, l'école de formation de Monsieur Lee, Monsieur Si, Monsieur Lee, excusez-moi, Monsieur li peut, quelles sont les, les, pistes de collaboration qu'on peut signer avec euh, Monsieur Lee. Donc vous savez, la direction de l'emploi est chargé de définir tout ce qui est politique publique en faveur de l'emploi. Mais au niveau opérationnel, quand même, nous faisons ce qu'on appelle l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Donc la facilitation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc qui parle de facilitation parle de renforcement de, de capacité, d'où l'ouverture de cette école qui permet quand même aux acteurs Euh, de renforcer l'employabilité des acteurs pour faciliter leur insertion, surtout au niveau international. Donc euh, ça, c'est euh, une école quand même qui peut quand même permettre aux acteurs euh, sénégalais de, de, de de, pour faciliter leur insertion au niveau international. Et étant, étant, jeune, monsieur Lee, étant jeune, en prenant cette initiative, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire euh, si vous êtes en face parfois, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Parfois, il y a des, remontées, il y a des hauts et des bas. Donc, mais quand même, euh, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Emploi, de la formation euh, professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, et la pour les pour l'accompagner. Hmm? Dans le cadre des bourses de formation que l'ONFP et le 3FPT octroient. Donc nous sommes disposés à, à, lui accompagner. Tout à l'heure, il a souligné un point important pour dire que voilà, au Sénégal, on aime trop les, les lettres, les, les, les pour l'administration, pour etc., la lenteur, exactement. Et euh, qu'est-ce que vous en dites euh, je pense que pour notre ministère, ce n'est pas le cas, parce que quand il a introduit une une demande de, de, de, une lettre de demande d'accompagnement. Le directeur m'a imputé ce, ce, cette lettre-là et je l'ai appelé, on a discuté. Donc, oui, on a discuté. Oui, on... no, Tay, let me pour kid. I'm serious because because them bug work. I'm ah, sorry to cut you off, but them bug you work what, you know. Ah, yeah. Ahead, Donc pour notre cas, pour notre ministère, c'est pas le cas. quand même, euh, il faut dire, euh, parfois, il faut euh, relativiser et essayer de, de, de, de comprendre quand même. Et dans notre ministère, quand même, nous avons le 3FPT, nous avons l'ONFP, nous avons la direction de l'emploi, direction de la formation professionnelle. Et vous avez vu hum, actuellement les centres de formation professionnelle qu'on est en train d'installer au niveau national. Donc et là, nous avons accompagner, insérer beaucoup de jeunes. Et même tout récemment, nous avons quand même formé des, des lutteurs euh, sur les techniques de garde-corps rapprochés. Donc tout ça, c'est pour faciliter leur insertion. Et nous, ce qu'on ce qu'on veut, notre cible, c'est tous les demandeurs d'emploi. Tous les demandeurs d'emploi. Il n'y a pas différence d'âge. Ouais. Oui, oui. <laughs> Merci.